Serigne Fallou di grande surface bu boole épicerie fast food ak pâtisserie ñu ubbi leen ko fii ci Touba Mbacké lépp lu ngeen yittewoo su ngeen ñëwee ci épicerie bi daa ngeen ko fi fekk yéen ñi bëgg a defar ay ndog yu baax ñëw leen gaaw angle Serigne fàllu am nañ fa lépp lu jëm ci wàllum charcuterie moo xam saucisson la merguez poulet pané jambon fromage gruyère viande hachée hot dog ba ci tàndarma yi nag bépp xeetu tàndarma am na fa ak jus naturel yi moo xam jus locaux yu ñu defaree fii ci réew mi ay jus la it pour diabétique yi am na aussi sucré noonee it la ko amee ci boisson yi bépp xeetu boisson rek su ngeen ñëwee ci angle Serigne Fallou ci épicerie bi da ngeen ko fa fekk bépp xeetu meew lait concentré sucré wala non sucré lait en poudre beurre chocolat jus en poudre muy jus bi nga xam ne pëndëx lay doon moo xam aussi jus concentré menthe wala vimto fruit nag bépp xeetu fruit bu ngeen soxla rek su ngeen ñëwee da ngeen ko fa am ba mu sëkk ci ay fruits yu frais nag épicerie yi muy ceeb bu baax lool am nañ fa ceebu basmati ci ay saak cinquante kilos vingt cinq cinq ba ci un kilogramme diwlin ak lépp lu jëm ci xeetu épices yi am na fa ah bébé yi nag fàttewuñ leen yéen ñi bëgg ay purée yu baax ci seen bébé yi ñëw leen gaaw ci épicerie bi am nañ fi ay purée yu baax ci xale angle Serigne Fallou boo ñëwee ci fast food bi lépp lu ngeen soxla am na fa muy shawarma poulet du pays muy poulet ordinaire yi pizza hamburger norvégienne sandwich fataya mani la bépp xeetu plat bu bëgg am na fa nga ñëw ci pâtisserie bi nga fekk fa ay croissant croissant jambon ay feuilleté pain raisin pain riche nem pain chinoise mani la bépp xeetu croissant bu ngeen soxla rawatina ci seeni ndogu ñëwal gaaw angle Serigne Fallou di ngeen ko fa am ba mu doy sëkk li ci gën a neex nag mooy angle Serigne Fallou ay prix yu xéewale moo fa am ñëw leen gaaw ñu ngi ci Touba Mbacké ci buntu kër Serigne Abdou Fatah gi nekk ci yoonu 28 bi mën nga jokkoo ak ñoom ci 77 187 46 84 wala 77 45 43 wala 78 591 62 62 wala 77 657 06 04 angle Serigne Fallou épicerie fast food ak pâtisserie ñoo leen di ñaanal kooru jàmm. يلا وسلم والمسلم في أباد على الذي إليك خادم عباد